melnu man may maire bo xam tay munuma genn génn Sénégal ñaari at ñu tere ma génn réew justice sénégalaise ben sas la ko Macky Sall sas fu tolli moy ju fukki wër ak ñett yi ñu jëm ño xam fu ñuy jaar waaye nañu fexé ba lijeenti lo xam mën na ték téré Ousmane Sonko nek candidat constitution dafa ne ku ñu bëgg jaay doole am nga sañ-sañu xeex am nga sañ-sañu résister ñun dinañu xeex li xew ci réew mi mooy coow loo xam ne taaloon na réew mi ñaari at ci gannaaw yëngaloon réew mi ba fukki bakkan ak ñeent rot ci ci ay nit gaañu ci ñi seen bët ñi seen loxo ñi seen tànk ñu ne lu mel nii musuñu gis mu am senegal wala mu toll noonu ñu jàppoon ni nag foofu la mbir mi di yem que Macky Sall dina delloo xelam ci Yalla baye justice bi mi utiliser ngiré di songu ay adversaire politique ndekete mom dafa wuti won doole pour ñew ne fofu rek gatché gi ma amone ndax mom gatché lako jappé nit bu bew nit bu reuy bu dara amé olé nga xol lo ci mëna tiré ci lu baax yow da ngay japp li gatché la faw ma mu delu ci ci lola dem li nga xam ne moo ne woon seen seen li ñu laloon ba ci début bi te li ko gën a firndeel mooy benn jigéen bu ñuy wax joor Diagne Dior Diagne soxna la ci Antoine Diome bi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur mu rëccal ab message boo xam ne da ko doon yónnee keneen daal di juum yónni ko kenn ku ma jege lan la ci wax mooy dossier bi bu leen ko tëj ndax bu ngeen ko tëjee réew mi day tàkk manifestation dina jóge fu ne fii ak bitim réew té lolu baxul ci réew mi baaxul ci nguru Macky Sall la ngeen di def moy da ngeen koy bàyyi mu tok kërëm bu ko défé enquêteur yi woo ko di laaj ay question juge bi programmé procès procès ba nak bu ñëwé procès yaq der la ndaw si ñëw naan fi la ma jaar def na ma li def na ma la bu ko defee daram yaq ci Sénégal yépp dootul mëna taxaw laaj baatu Sénégalais li mo néwon sen lal sen pexé waye pour def ko il fallait ñu dem out ñu len koy defal naka lañu tanné Omar Maham Diallo bi nga xamné moy juge d'instruction ben ñu ko tan ci walu mboko parce que wax su joté dañ koy wax nañu bayyi ray wax ji dañ ko tan ci walu mboko ndax mom limu sét ak ñu bëri ci gouvernement bi melni ñom ablay ñoom Ablaye Diallo ak ñeneen ak ñeneen ñun xam nañ ko ñu tan ko ci walu mboko ak walu waso lolu méthode makila waye waaye bëgg du am moy du mus dox ba euh, xeet Sénégal ak ethnie yu am Sénégal ndax fi ñëpp bokk ndey ak premier critère bi ñu tànn ko ci kaw moom bi mbir mi nee kët ne page Facebook bi mu yor daf texte bu mu publier bu mu partager. texte boobu ki bind dafa Ousmane Sonko dañ ko war a yóbbu kaso def lii moo def laa def et vous xam ngeen ni kuy juge dañ laa a ngay publié yu juge obligation Une obligation de réserve dossier bu en cours tribunal même si vous avez yow dossier vous da un dossier. war a disqualifié rek pas na tax dossier Nous ñu un ko ci anam yooyu daat koy jël waajal ko mois balaa ñu koy jël bi sept mois laalu dossier bi lu ne nag dégg nañ ko ci te weddiwuma ci dara ndax keroog bi ma duggee ci biroom fekk ñu sotti saafara ci suufu bureau bi yépp mu dem ut ay bandaas ñu bandal ko loxo bi juge bu bu nar jàmm du def loolu kooku lañu jël jox ko dossier bi ne ko fexeel yaa xam nooy def waaye li ñu bëgg ci yow mooy fexeel rek ba renvoyer à un procès mu dellu ci li ma waxoon ci message u Dior naka la ñu mën a joxee juge d'instruction ab dossier dossier bi ki nga xam ne moom moo accusé ki nga xam ne moo jiñaate ba léegi àndiwul benn preuve benn benn preuve andiwuñu ko waaye ñun ñi nga xam ne dañ ne complot la dañoo àndi suñuy preuve teg naa ci loxo Omar Maham Diallo rapport gendarmerie rapport bi am signature ñu ko war a signé am cachet yi am lépp liñ ci war a nekk rapport bi wax ni sëriñ Bassirou Gueye bokk na ci complot bi ñu déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci dossier bi muy commandant Mbeng ak capitaine Touré ñoom ñëpp ñu ne Serigne Bassirou Gueye moo modifié PV bi moo leen sant ne leen changé leen li moom capitaine Touré bañ ko moom Abdou Mbeng nangu ko rapport boobu rek doyoon na jaru woon sax yeneen yëpp est-ce que juge d'instruction boobu waroon na renvoyer dossier mu jël ko teg ko fële docteur bi nga xam ne moo consulté ki ne moom dañ koo siif docteur boobu ñëw taxaw ci kanamu juge bi ne ko man de ki kii ma ñiy wax bi ma ko jëlijee ba xool ko gis gisuma benn man nga mandarga boo leen dañ koo siif te man bi mbir mi amee maître Gabisso moo ma woo dem demal jëlal mako ma xey le lendemain defaguma sama PV Mamour Diallo ak Gabi di ma yemul ci fofu de dafa dem ci huissier ñu constater ko appel yi nga xamne ne Mamour Diallo ak Gabi Sow yëpp ñu ko doon wo dafa dem ci huissier huissier constater ko mu jël audio bo xamne Mamour Diallo mo ci wax ne ko est-ce que mun nga genn guddi gi ci couvre-feu bi ñu gisé te Mamour Diallo neena mom yéegul dossier bu dul fan yi la koy doog a yéeg la ciy doog a yooyu yëpp mu boole clé USB beeg yooyu yëpp jox ko juge ba pare ne juge bi boobu ba léegi ñu ngi may menacé de mort ñëw nañu sama kër dàjj ko toj nañ sama oto toxu naa toxuwaat déposé naa plainte gendarmerie juge d'instruction bu am loolu est-ce que waroon na yóbbu dossier bi instruction est-ce que waroon na ko yóbbu procès juge boo xam ne yor nga certificat médical boo xam ne nee na la fii viol amu fi luy mën daal gaal ni jote am na fi sax feeñul ci certificat médical waxuma laa viol nga jël loolu teg fële ne loolu intéressé wu ma juge boo xam ne ña doon liggéey ci bërëb ba yépp déglu nga leen nu mu tuuti tuuti ñeent wala juróomi nit ñépp ne la lii ngay wax mënul ne yéeguma ko te maa ngi woon ci bërëb ba toog xanaa ku ñuy siif sax di nga weqatu wala di nga yooxu wala nañ dégg nga jël loolu lépp teg fële ne ça ça ne m'intéresse pas juge d'instruction boo xam ne capitaine Touré bi nga xam ne moo def enquête bi def na déposition ne ko li ma mës a déclaré yëpp wax ko ci presse ko feneen confirmé naa ko j'assume nga jël loolu teg fële ne intéressé wu ma juge d'instruction boo xam ne. ki ñuy wax MC Bay Mbaye Niass wóolu nga ko mu ñëw bi mu ñëwee nga ne ko yow li nga wax foo ko mu génneel la clé USB boo xam ay audio moo ci nekk audio yooyu ki nga xam ne moo dañ koo bi musul am jote sax amu fi waaye ñoom Mamour Diallo moo ma dugal ci lii nga woo ki nga xam ne moo jiñaate de mu nga ko audio bi ne ko ndax lii yaa ko wax avocat ngi mu ne waaw lii sama baat la man maa ko wax waaye dama doon foo ak moom dama ko doon làmbatu rek pour xool nga ne loolu doyula yow juge d'instruction nga jël loolu teg fële juge d'instruction boo xam ne def nga li ñuy wax réquisition mooy dem nga sonaateel dem Tigo ñoom ñëpp nga jël numéro téléphone ñëpp nag muy ki jiiñaate muy ki ko doon dawalal ñoom ñëpp

japp na ni Omar Maham Diallo dafa def lu ko neex wala liñ ko sant bettuma ma ci lima wax di jitu waye bettuma ma it ci dama gëm ni lu bari def ko ci sagom ndax ku dem fofu ci bureau fekk li fa nek ci ay renseignements généraux fekk fa ci li fa nek ci ño xamne man faat bakkan ci ci dara ñu ne fofu so ñu nan audition bureau bi nek en face yépp ay renseignements généraux ño fay nek ñay nekk foofu di yóbbu di andi te ñooñu tey ñoom ñooy instruire dossier bi ndax ñoom ñooy woo samay nit naa leen tel jour dina am telle chose am na ci benn alkaati boo xam ne Casamance sa dëkk nappel la sant ma wax leen man damay wax nit ñi directement nekk ci mbir mi bokk na ci ñuy ñuy ñuy accompagner plaignante bi di ko di ko andi te di nekk tout le temps bureau Omar Maham Diallo moom mooy woo samay nit. une semaine avant ne ko tel jour dina am confrontation tel jour dina am telle activité kooku moy joxe léegi information yi kon moom instructeur dossier bi man loolu laa gëm juge bi bañal na ma ma mun a génn réew mi te bi moy ñetteel yoon bi mooy troisième fois man may kenn ci maire ci Sénégal fal nañ ma maire depuis fukki weer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

teguwaat ci yoon démocratie ñëw fi al réew mi des ci réew mi sàcc mi jeex fi loolu jaral nañu téeméer moo tax bu yaakaaree ni police ak gendarmerie moo ñuy tiital ñun ndax na boppam droit boobu ma waxoon man 2021 ne j'invoque mon droit moi Ousmane Sonko mon droit personnel à la résistance ñu dem créer seen dossier ne appel à insurrection tey laa ko gën a wax ni buñ ci tollee parce que mi baa ngi dem de mais dinañ xam ni mën nañu lañuy def te ñeme nañ booy dee ci àll na la gaynde rey booy daanu na nga daanu avec dignité nit boobu sa dignité jógee fii dara desatu fi man loolu laa gëm te gëm naa ni ñi ànd ak man yépp loolu lañu gëm ma yokk ci nag nii kilifa diine yi ci réew mi mbir mi bi mu amee daaw jéeg man demuma seeti kenn dewma ci benn kilifa diine ne ko wax ci dewma ci benn kilifa aada ne ko wax ci xam ngeen lu tax ñaar rek moo tax benn orma gi ma jox kilifa diine yi ba yenn yi du ma bëgg a dugal leen ci dama naan nañu def li ñuy def rek lu yàlla def ñu xam ni nii la ñaara bi wax naa leen ko léegi dama gëm ni dama gëm yàlla d'abord waaye gëm ni askan wi tax ñuy sonn askan woowu du toog di ñu seetaan ñu ñuy faagagal moo tax bi may wax askan wi laa waxal mu amoon nag ay kilifa diina yoo xam ne teel nañ cee àddu wax ci wax ju am solo ñu ràññee ci ku lim juum nag waaye ñu ràññee ci sëñ xab sëñ si Dabakh yeneen bi ngi fàttewul tax daa fàttaliku taxawaayam te li mu doon wax bu ñu ko teeloon dégg mbir mi du egg foofu mu yegg noonu yéen ciy fàttaliku sëñ Fallou Mbacke Jumaada rahimahullah nga xam ne ci diggante bi yàlla def na li gën ci moom lam ci doon wax buñ ko déglu woon mbir mi du egg fi mu egg ba li ci yàqu yàqu ci waaye malheureusement kenn dégluwul woon ba mbir mi egg fi mu yegg bi mu yeggee fi mu yegg gëm naa ni kilifa yëpp def nañ ci liñ ci mën a def waaye sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér dafa jël ay ndaw yebal leen yebal ndaw bu mat ndaw nag muy sëñ Basiiru Poroxaan mu wax ñëpp dégg ko mu ne kilifa gi dem moo ma yónni nee na daf leen ñaan ngeen teg mbir yi ci suuf manifestation yi ngeen war a def suba ak fan yi di ñëw ngeen may ko bàyyi ko waaye yemul foofu li ngeen xam ne moo leen métti ci réew mi da ngeen ko tënk cib kayit teg ko sama loxo ma yéet ko ko moom dina ci dox lim ci war a dox ñu ne kon mbir mi ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi mu sedd kenn ku ne dellu këram ñëpp wane ni am nañ fi ay kilifa yu ñëpp déggal ba suñu nee def leen lii nit ñi nangu ko def ko ndam googu nag nga xam ne ndamu Sénégal la woon di ndam suñuy kilifa diine waaye di nag di suñu ndam ñun ñii acteurs yi nga xam ne seet nañu lu bari jox cër ak orma suñuy kilifa ba tax ñu ñaa ñaan ñu teg ci suuf suñu ndam la woon ñu nit ndam googu nag mu ngi waaj a nërmeelu ndax fi ñu jëm fi ñu jëm su dee fa ñu tegoon dossier bi lañ ko jëlaat ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi suñu kanam ci ay troisième mandat ki ay tëjaate ak ay ray rayaate jëm li xewoon mën na xewaat ci lu yàggut te ñaanuñu ko yàlla te buy ñëw anam yi muy ñëwee dina gën a métti te kooku du doon ndamu kenn ci Sénégal am na nag lu ñu bindoon teg ko ci loxo kilifa gi lii may wax nii bu doon giseek moom yomb na ma du fii laa koy waxee damay toog wax ko ko yónnee nañu def nañ li ñu mën a def pour mën a am gise googu pour waxtaan ak moom ci li xew ci réew mi juróomi weer ci gannaaw boobu egsee gu ñu woon fii honorable présidente ay dëmbooñ ak docteur Cheikh Tidiane Dieye jóge nañ fii Ndakaaru taal seen oto dem ba Poroxaan fekk fa Serigne Bassirou Poroxaan de quoi ah, Serigne bi lii de lii ak lii ak lii waxoon nañu waaye lii ak lii ak lii moo am ci réew mi boobu ba léegi ñun nag ñu ngi commencé jaaxle dafa mbir mi di jëm kenn ku ne dina seet nu muy fagaroo te bu boobaa li muy yàq ci réew mi dina bëri kon mbir maa ngi bëgg a yàqu te ñëpp sedd nañ ni li koy yàq jógewul ci ñun parce que sénégalais nag li ci ëpp ku fayu la xam mbir maa ngi bëgg a yàqu te jógewul ci ñun. kon dañ leen di teel a yéegal balaa ñuy egg foofu kilifa diine yépp nag la ñëw ndax ñun amuñu ci xaj ak seen kilifa diine yépp yi ne ci réew mi am nañu ci commencé addu démb rek envoyé nañ ma benn boo xam ne def naa kenn ci njabootu sëñ Abdou Lahad sëñ Murtada moo ko ci wax ñu koy rafetlu bu baax rafetluñ ko parce que dafa wax loo xam ne daf ñoo arrangé mais dafa wax loo xam ne mooy njëriñu réew mi kon ñu wax ñu tëjee ko foofu wax nag li fi xewoon bu ñu bàyyi mu demaat noonu nañu def li ñu war a def balaa fitna di samp ci réew mi